dal leen ak jàmm yemale ngir amal paj mu mucc ayib ci tu tànk yeeg waxambaane yi dund ak jàngoroy sida loolu mooy thème mu édition 2023 bu semaine national femme sida ministère de la femme de la famille et de la protection des enfants daal di ko tëgg mu jaari fa nag di woo képp ci askan wi ñu booloo ngir xeex feebaru sida ci ndaw ñi gën a yemale te it gën a gëstu ci seen yitte ngir muccal leen ci jafe-jafe yi nga xam ne moo leen di lor Ismaïla Marcel Koli semaine nationale FAMSIDA bu tàmbalee tey ñaar fukki fan ak juróom mu nara a ba ci fan fanweeri fan ak benn ci weeru janvier 2023 doon na mandarga buy wone contribution ministère de la femme de la famille et de la protection des enfants ci xeex jàngoro sida ci mim réew ki xamal lu ñu mel mooy di Mame Gor Diouf doon secrétaire général ministère de la femme de la famille et de la protection des enfants dañu fas yéene li ñu doon def ci contribution ci riposte bi dinañ ko dooleel dinañ ko yokk loolu moo tax li ñu sumb ci tur madame la ministre mooy def programme bu rëy rëy ba li mu nekk rek point focal programme boo xam ne gën gaa tëgg nañ ko pour ñeenti at ñu gën a dooleel suñu liggéey ci wàllu xeer sida gën ko jëm la ci xale yi ci njegamaar yi ak ci jigéen yi donc programme boobu moom tëgg na ko ba pare ministère bi contribué na ci léegi ministre daf ñu sant comme yéen am nañ daje bii bala ngeen a ñibbi même bu dee ni 30 minutes la moom na leen présenter programme bi ngeen def ko seen programme joxe seen xalaat bala ngeen a dem. naam Sénégal am ay résultats yu baax ci xeexum Sida ci mag ñi lu ci ñuul mooy xeex bi ci xale yu dund ak jàngoro Sida faj bi demewul noonu lu ñu mel la kii di Safiatou Thiam di secrétaire exécutif bu conseil national de la lutte contre le Sida xamle. ci feebaru Sida de manière am nañ ci jéego yu baax li si ñuul mooy dañu seetlu ni xale yi nga xam ne dañuy dund ak doomu jàngoro Sida. sida faj bi demewul noonu. jàpp leen ne semaine nationale femme sida tey lañ ko tàmbalee bi weer janvier amee ñaar fukki fan ak juróom ñu nar ko wéyal ba fanweeri fan ak benn ci weeru janvier 2023 ci Sénégal wërngal këpp. ci jamono joo xam ne ñu ngi dund ay mbas yu bëree bëri dafa jàmp ñu gën a tàggat laboratoire yi ci ab approche boo xam ne dëkk yi ñoo koy bokk ngir mën a méngoog jamono te it mën a xeex défi yi nga xam ne ñooy wanewu ci wàllu wér yaram frontières loolee di ab plaidoyer bu Mouhamadou Sylla di responsable pôle développement humain ca agence française de développement mu bàyyi le kàddu gannaaw ab réunion annuelle boo xam ne ñu ngi ko doon jagleel projet bi ñu duppee réseau d'Afrique de l'Ouest des laboratoires de biologie médicale nee na nag gën a tàggat suñu système de santé yi dafa jàmp te doon loo xam ne mënul des ginnaaw ci jamono joo xam ne bu ñu bëggee gën a ñoŋal wàllu wér-gu-yaram ci suñu dëkk yi bu ñu sukkandikoo ci agence de presse sénégalaise mbokk déglukat yi fii la ñu yem ak yéen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 face à l'infection à VIH est le thème de l'édition 2023 de la Semaine nationale Femmes Sida organisée par le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Une occasion d'inviter tout un chacun à s'engager dans la riposte au VIH, de mener des actions concrètes en vue de réduire la vulnérabilité des enfants et adolescents et par la même occasion mettre en évidence les inégalités auxquels ils sont confrontés. Ismaïla Marcel Colli. La semaine Femme Sida constitue une illustration parfaite de la contribution du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants à la riposte pour mettre fin à l'infection à VIH. C'est pourquoi Le ministère en charge de la famille s'engage à renforcer sa participation dans la riposte contre le VIH-Sida, nous dit le secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Mam Gordiouf. Madame la ministre a déjà engagé depuis plusieurs mois le point focal Sida à élaborer un programme national d'appui à la prise en charge des enfants, des adolescents et des femmes vivant avec le VIH pour une période de 4 ans avec un budget estimatif de 235 millions pour la première année. Bien que les résultats dans la lutte contre le sida soient encourageants chez les adultes, ils demeurent très faibles chez les adolescents. Soutien Safietou Thiam, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre si les résultats sont encourageants la lutte contre le les adultes, notamment les femmes vivant avec le VIH, moins d'un enfant sur deux est dépisté et traité pour le VIH. Sur près de 4000 enfants qui vivent avec le VIH au Sénégal, nous n'avons que 1400 46 qui reçoivent le traitement qui leur sauvera la semaine nationale Femmes-Sida se tient du 25 au 31 janvier prochain. Des sessions de sensibilisation des mobilisations sociales suivies de dépistages volontaires au VIH seront tout au long de la semaine dans la banlieue de et au niveau des régions avec l'appui de SEDAF sous la supervision des régions médicales. Face à la multiplication et à la réémergence des épidémies, il est essentiel de soutenir le renforcement des capacités et de monter en compétence des systèmes de laboratoire dans des approches régionales indispensables pour appréhender des défis sanitaires qui dépassent les frontières. Un plaidoyer de Mohamed Silla, responsable du pôle développement humain à l'Agence française de développement Intervenant à une réunion annuelle du projet dénommé Réseau d'Afrique de l'Ouest des laboratoires de biologie médicale, il a insisté sur le fait que le renforcement des systèmes de santé constituait un élément clé pour des investissements les années à venir, selon l'agence de presse sénégalaise. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.